loolu dafara leen toog toogal ba sëñ bi jàll yow kii kan la ah sëñ bi nee na àdduna wóoratul salaamaaleykum sëñ ñu sëñ bi nee na àdduna kenn xamul sëñ bi ñu sëñ bi nee loolu àdduna wóoratul sëñ bee expliqué nu tabaarkàlla na ngeen def sëñ bi nee na àdduna kenn xamul expliqué ñu waaw mu expliqué leen loolu sëñ bi ci mbonam ci ñàkk ne gannaaw yéen xamu leen ngeen ibbi seeni nopp dëj seen taat mu expliqué leen waaw nii ma kenn bu ma kenn fay nanga ko daan defe rek mm. wuy loolu nee nuyuwul kenn te bu ko kenn fay ma ñàkk sama ndey sëñ bee leen dàq defante fop ku ko fi fay amul bàkk perek de amul nefa maayin fay leen ko lépp loo xam ne jug ko wax maa tey yaa cam kàddu yi ngeen dégg mu jib fi rek moom sëñ bant mu tëgg doomu alaaji xob moo ko wax te nee moo tay ba tayaatoo waaw jàngi moom ñu demee rek noonu lay demee mu ne waaw lay demee sëñ bi da leeral ma mën a leeral hmm? da leeral ma mën a leeral nee na waaw jàngi moom ñu demee rek noonu lay demee da waaw cam jàng nee ni muy demee rek daan ko demee daaw jéeg deme ko daaw ren jii noo nii lay demee mm. jarul ñu leen di bamtuwaatal dara sëñ bee yor ay géttu xale yi jigéen yu baax ñii di yari xar ñii di yari bëy ñii di yari nag moom mu yar ay xale yi jigéen bëgg sëñ bi ku ci bëgg a procuré wu nu muy def ñu mm, joxe cent mille jox la jéeg bu ne faaj jéeg bu ne faaj tribord tribord mbaboor mbaboor nga fanaanoo fanaanoo yeewoo yeewoo yendoo yendoo njogonalo njogonalo delloo delloo la ilaha illallah nii yow mi nga xamante ni yàlla dalaa wërsëgale cent mille francs ngottoo nga ñëw ni ko sëñ bi am ci sa jiwu ji laa bëgg ci sa gétt gi nee dina la jox jéeg bu ne faaj tiriboor ba baba nga yendoo njogonaloo fanaanoo yendoo delloo na delloo nag ngeen dimbali ma rek ngeen delloo sëñ bi moom mën naa lijjantil boppam ndax jàngi daaw yi ba ko ay saaga nday yàqee sëñ bee ko lijjanti hmm. ren nag maa jël sama responsabilité jàngi ren yi ko fi saaga nday man maa jël sama responsabilité ubbi sët tey nga ma téye bu am jom te bari doole yaag sa lamu loxo ana sa jaaro baaraam sëñ bi wéy la. Mm. Eh, ku joxe cinquante mille francs mm, mm. fukki junni fukki junni. mu jox la jeeg. jeeg tiri tiri. rek nga fanaanoo. fanaanoo yeewoo delloo delloo. bu la ngott jàppee nga yor cent mille. ñëw ni sëñ bi cinquante yaa ngi nii ci ci ci ci sa jiwu ji laa bëgg. doo am jeeg bu ne tiri boor ba ba boor de jeeg doo ngay am tiri. yéen doo njogonaloo delloo. delloo na ngeen delloo. yendoo njogonaloo delloo eh, eh. a joxe dix jox la taay fiin taay fiin nga fanaanoo fanaanoo delloo wuy loolu ñaari junni nga yor du ñàkk ne foofu laay abonné mm. feebale su taay laa am di sëñ bi ne boo yegg seeg sa ñaari junni dina jox ñaari junni nga jox ko mu jëndeel la taay du pas n'importe quel taay fin nag taay fin boo xam ni de préférence ma nga njool ca kaw bu njoolee ca kaw ba noppi nga gis mu doon teint teint clair mbaa teint noir yaram ba yaram ba mel ni luy sangoo meew nga koy xool di kontaan yàlla boo ko jàpp muy nooy ngay dem muy gën a nooy ngay dem ba lu gën a nooy nooy eh, eh. lii lan la xew fàtte woon naa ni nooy da koy daaneel bay ay waay ba maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu ma res eh, nit ñi fi toog loo bëgg ah déedéet déedéet déedéet eh, eh, eh day yomb fii munoo saa yoo daanoo ñu fóon la bu dee loolu ma nit ah aca ah waa tuñu disponible kay bu ñëwee di la fóon fóon ma man aca aca aca aca aca aca bëtal daanu gi sëñ bi wéyalal andi nii waaw daa joxe cinq mille cinq mille ñu jox la mineur mineur nga xool ko xool ko laal ko ñu tëj la tëj merci jëf ñuy xeeb ñaari junni ngay indi junni naan sëñ bi junnee ngi nii ñëwal ma ñàkk sama day mineur lañ lay jox laal nga xumuy tëdd nga kaso mm. amul sax demal ma ñëw mm. sëñ bi juróomi téeméer nag mooy ñi nga xam ni mm, jox la nga jëndi saabu loolu neex nga def loolu moom defe naa ne leer na seen bopp waa juróomi téeméer moom jaru ngeen di yegsi notice baa nga noonu jàdd leen ci boutique bi jënd saabu leen neex def waa kay léegi nag ndéelu baat bu neex bi ñu ñaanal leen. Mm. déggal loolu <laughs> ak a ñàkk fayda. dégg nga sëñ bi. Mm. ci baatam bu neex. Mm. nee da leen cee bëgg a baaxe moom mii. ngeen xam ni ku mën a way la. nee mu sikara leen ci loo xamante ni tabaarkalla macha allah sëñ bi sa sa baat bu neex bi ngeen may nopp mu wéer. am naa fi ngeen may yóbbu. ndeysaan. waaye fu raw la. déggal loolu. ràññi naa li ngeen di yëg ci. ndeysaan. waaye nukurum laa koy yow waay boolu saabu koo réere boo demee duus war na laa sonal yow waay ndekete kese naxul yi bëy loolu leer nañu waxi kese naxul kenn loolu leer na la li may wax neex na leen bëgg na leen saf na leen saf ma bëgg moo tax ma leen di bëggal ay waay su ma juumee ndeysaan bu leen ma baal bu ko kenn baal su ma leen tooñee bu leen tooñee maa tey moo tey sëñ bi famille. ay eh, waay ku bëgg a bokk sëñ bi famille waaye yëkkati sa loxo ca kaw waaye sëñ bi nañu nañu nañu ñaan nañu ñaan nañu ñaan nañu ñaan <coughs> ngeen tàllal seen loxo rek te ngeen nangu ñaan. Eh, dëpp leen dëpp leen seeni loxo yi. ah 50 cent daa ñëw ci xew mi. 50 cent de ngi nii ci xew mi. Ndigal ñëwal ñëwal ñëwal ndeysaan ndaanaan nga sëñ bi ndaanaan nga ndaanaan nga sëñ bi nga ki la jongal ki ka jongal ndaanaan la yowaay ndaanaan nga bant mu tëdd ndaanaan nga nga sëñ bi ndaanaan jongal ki ka la yowaay alma micro bi alma merci beaucoup merci beaucoup ayca jaa ngeen jëf kontaan nañu bu baax a baax ngeen tàccu xale yooyu nga xam ni ñoom ñooy xale yi aba show di waajal ba tey le cinq juillet foofu ca Grand Théâtre euh, muy Dakar MDR